di am moo tax li ngay dégg muy neex ci sa biir xol te doo xam neexaay bi fan lay fan lay jóge fekk technique yu mel noonu moom la utiliser ci bind bokk na ci aussi nasihun bila richin ci wet gi mu tudda saxiyun bila mannin donc loolu la ñuy tuddee tasrian utiliser na ci lu bari am na aussi li ñu ak takraar wal jinaas mooy euh, homonymie ak paronymie mooy dafay am ay son yoo xam ne da nga koy gis muy répété wu ci biir benn bayit bi kese par exemple xolal Chine bi Chine nim koy répéter quatre fois ci bir bayit bi kashafta du ja qalbi kashafta du ja qalbi wa kulli hamaytuhu bi xifdi lladi mahma shtaka mushtakin ashka gis nga donc Chine bi ñew na quatre fois ci ben bayit bi donc day deug rek kat bi di ko muy neex ci yow kashafta du ja qalbi wa kulli hamaytuhu بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى donc day répété benn son mu fexe muy bi rep kaaf répété na ko quatre fois ci benn bay kitaabun karimun كفيت به الأعداء والذنب والشركات quatre fois ci benn bayit ah kitaabun karimun min karimin mukarrimin kufiitu bihil aada wa danba wa shirka comme ni répété aussi xaaf quatre fois ci xadamta bi taqdimil ali ya rasulana wa xustal ola ya nasiral xaqi bil xaqi donc ci niveau phonétique niveau phonétique daal bu extraordinaire moom la xasida bi am bi ma koy toog di jëkk jàng ci biir kuréel yi ma daan jàngee xaw ma woon mu xaddamaat avant maa ngi toog ñu ngi kuréel ñu ngi jàng mais maa ngi sentir am maa ngi am lu may sentir mais maa ngi aussi remarque yi may wax ci laa ko de maam ci biir jàng xasida laa koy def pour la première fois di seetlu mais xasida bi araf bii la ko bay bi araf bii la commencé moom la jeexee mais melokaan yii may liir ne même araf la ñuy commencé waaye what's going on ci laa ka notee ci sama agenda ne il faut ma am benn jotaay ak xasida bi bu yàtt pour comprendre yan technique moom la sëriñ bi utiliser pour bind ko euh, booy topp jinaasaat yi nga xam ne moo am ci xasida bi jinaas mooy am son yoo xam ne da nga koy répété lu bari ci biir euh, xasida gi da ngay gis effort yu mag yi nga xam ne sëriñ bi doof ko doon def pour yëkkati niveau xasida gi pour mën a répondre aussi li nga xam ne moom la wax léegi ci yuxaatibu nii maa qiida lii bim daxannahu madihan ajiban mufhiman faa'iqa ra'i wax ne li nga xam ne moom la ma suñu borom wommatal ci ay may ñooy wax ak man naan man taggal rasulullahi tagg gu yéeme goo xam ne dina jommal sax borom xel mu sell donc da gis effort yu mag yi nga xam ne def na ko ci loolu. mais ni xasida bi bëree ay jinaasaat noonu la bëree li ñuy tuddee tibaax ak muqaabala tibaax muqaabala mooy nga utiliser nga tudd ñaari sens yu opposé tudd mbir tuddaat contraire bi ci kanamam li muy permettre mooy mana yi dañuy def tajaazub mooy day mel dañuy bëri dañuy xëccoo rôle bi muy joué aussi day tax maanaa bi di des ci niveau euh, ci xelu récepteur bi exemple yi ma yi ci tudd almayn alxaq ci benn bayit mooy caaxaan ak dëgg al amir an nahi ki digle ki tere asir al jahr li suufee ak li fes ishtara bi'tuhu jaay jënd al asl al far ها البر البحر جيت جيري روحي جسماني رو سما يرم xuruuji duxuuli al fatx al ratq donc da ngay gis lu bari day utiliser ñaari termes yoo xam ne ay sens opposé lañu am mu indi leen ci benn bayit moom la ñuy tuddee tibaax ak ak muqaabala aussi rôle bu extraordinaire lay lay joué day tax maanaa bi di des bu baax ci zihnul mutalaqi bu dee maajim yi mu utiliser maanaam ci luxal arabiyya mën nga ci gëstu gëstu gëstu gëstu ba xam sax nombre de termes yi Cheikh Ahmad Bamba di utiliser ci ay bindam nit dina àgg foofu ci ay gëstu waa nga xam ni nit dina wax benn bayit sax nga taxaw sañat dóor sa loxo ne Cheikh Ahmad Bamba waxu ko te doo dépendre sax ci maanaa yi may ci alphase yi mu utilisé parce que xam nga yan alphase lay utilisé loolu la ñuy tuddee lexique mooy yan terme la doon utiliser bi muy bind xasida bi ñetti champ lexicaux laa ci sentir bi ci dëkk mooy mojam madixi xaas bi nabi champ lexical boo xam ne pour yonent bi la terme yëpp euh, terme yonent bi la par exemple tudd na ci xalil habib bashir nazir nasik naqib raqib malaz maahin mujib mujaab masih mudi malih maasum murtada murtaja mustafa muxtaar xayrul xalq imaamul rusul xayrul baraya sayidul wara جامع الشمل ماحي الجهلي جالب الوحي ناصر الحق بالحق دونك بو خولي تيرم ييب اي توري يونت بي اك اي ملوكانم دوزيام شان ليكسيكال بي موي شان بو خاني بور يالا سونو بوروم لا اي توري يالا اك اي ملوكانم رب العرش زيل جودي والعفو الهي مولايا الرحمن الواحد القهار حفيظ مانع الهادي كريم مكرم المغني الواسع الباقي مغن نافع باق محي هاد رب البرايا فاتق الرزق donc boo xoolee yooyu yëpp ay ay ay ay melokaani suñu borom la ak ay turam troisième champ lexical bi nag mooy champ boo xam ne moom la concerné moom Cheikh Ahmad Bamba ay mbiri boppam la ci wax saf wii kulli nifaali ibqaa'i fawzi kalaami niyaati fi'li ilmi ruuxi jusmaani fuaadi xubbi saadati kalaami kanzi jaahi uyubi zilaali zurufi kulliyati yadi lisaani xaali donc ay mbiri boppam mais day loolu day permettre jëmmam moom sëriñ bi dafa teew bu baax ci biir xasiida bi mais euh, teewaay boobu aussi tekkiwul li ñuy tuddee xatrasa muy fëgg sa na wala wane sa bopp déedéet euh, la moo tax muy tudd boppam lu bari parce que dafay teewlu lu baree bari li ko suñu borom defal ci ay xewal ak teraanga ak lim ko musal ci ay ci ay musiba looloo waral euh, saa yuy tudd boppam la plupart day day répété li ñuy tuddee baaul istiaana mooy su su am naa nangam sax danaan ci baaxu yàlla laa amee wala ci barke bi mooy bi euh, ñu koy tuddee baawul istiaana daf koy tudd lu baree baree bari ci biir xasira bi léeg-léeg mu jël baawul istiaana bi rabt ko ci yàlla suñu borom comme ci xarajtu bi fadlillahi mimma yuwabbixu gis nga xarajtu bi fadlillahi min kulli baatili xarajtu génn naa mais bi fadlillahi ci mbaaxu yàlla laa génnee min kulli baatilin ci lépp luy caaxaan léeg-léeg mu jël baawul istiaana bi rabtu ko ci yonent bi n'est-ce pas comme ni mu ñëwee ci euh, euh, yaqiini ilaahi wa huwa kulliyati yuxyi bi jaahi rasulillahi man nahjuhu uxyi gisoo suñu boroom moo may moo may fegal lépp luy ñaawteef mais ci baaxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg mu boole leen ko ñoom ñaar jël baawul istiaana bi rabt ko ci yàlla akub yonentam comme ni mu ñëwee ci xarajtu ma almaahi bi rabbi ay xarajtu bi rabbi ma almaahi xarajtu ma almaahi bi rabbi min al ada wala yantaxi naxwi alladi yatabajjahu dinañ seetlu aussi ci biir xasida gi ne tawsif na li ñu tuddee ay azmina naxwiya mooy ci wàllu temps verbe yoo xamante ni dañ ko conjuguer au passé ay verbe yoo xamante ni yuñ conjuguer au présent ak verbe yoo xam ne day wax ci futur mooy ñetti temps yëpp lay tudd ci biir xasida gi mais temps bi nga xam ne moo dominé ci biir xasida bi mooy zamanul maadi mooy temps passé euh, looloo tax xasida bi nekk xasida bu dal n'est-ce pas parce que zamanul maadi la euh, day mel ni sax boo koy lii da ngay nekk devent ay ay ay fait ay xew-xew historique yo xamne daf kay netali wat ba bari teug ga ci ay abyaat chanriya damair yi nga xamne mom la utiliser moy ay pronom personnel aussi tout na damirul mutakallim lu bari moy damiru ki wax moy pronom personnel lele mu utiliser damirul ghaib moy ku fi nekul wala damirul mukhatab moy koy waxal directement euh sa yu tuddu damirul mutakallim bopam la ci jublu n'est-ce pas moom moom sëriñ bi bind xasida gi euh, léeg-léeg mu tudd damirul xiyaab ba pare mu jëm ci moom maanaam muy wax ci muy wax ci kenn naan him fekk boppam la ci jublu comme ni mu ñëwee ci xatiaatuhu ay bàkkaaram anhum mahat set na wicc banda tawbatin ginnaaw ak tuub gu mu dellu ci borom fekk boppam lay boppam lay waxal euh, suy utiliser dameerul khitab aussi di wax ak nit leg leg boppam la ci djublu comme ñom ñewé ci khadim al mukhtari la tam sa sax yow yow katub yonent bi hey bul fàtte ay sabam boppam lay waxal fof fa man yansahum fal mat xamat xon mu xatta u it mu utiliser dameerul khitab bo xam yow may lire qasida bi wala yow mi kay dégg la waxal comme ni ñewé ci maqamatu khairil khalqi an ghairi rabbihi mughayyabatun fal taqra'an suuratan suuratan najmi utiliser na aussi ay utiliser ay damair yu bari leg leg mu delu ci dama yoo xam ne day delu ci ay nonam comme nim ñoy ci en fawtu anil ada turran li wajhi man nafahum li ghairi sarmadan lastu atfan wala mu delu ci yonenti la in jaa bil ayati rusulun taqaddamu fanalu bikal ayati min zi taqaddumi wala mu dellu ci saxaaba yi widaadi li rabbi wal muqabba wa xisbihi wa man habbahum wallahu li kaana bil afi donc bo sukkandiko ci ir yi ñew ci biir xasida bi dalay permettre nga xam yan yan personnage ñoo teew ci biir xasida bi maanaam bu doon film yan acteur ñoo ci nekk donc ñetti personnage ñoo ci gën a siiw maanaam euh, ginnaaw yàlla dañ koy génn duñ ko mën a considérer personnage ab yonentaam ak moom sëriñ bi teew na ci bu baax saxaaba yi teew nañ ci ñim ci tudd seen tour ñent lañ mooy aboubacar omar osman ali yonent yi aussi teew nañ ci kenn la ci tudd turam suma juumul muy seen maam di di di di aadama alayhi bu dee nag li ñu tuddee tarkib balaax yi foofu sax nga gën a mën a defee différence entre langage bu simple ak lamba langage poétique pour mën a xam carrément yan beauté poétique moom la moom la xasiida bi amee mais xam naa loolu moom dama koy bàyyi ak jàngkatu luxa yi buñ demee surtout ci gëstu boobu dinañ ci mën a am lu dal seen xol donc euh, li ma def nii benn résumé bu modeste la ci benn étude boo xam ni en 2007 maa ngi ko defee woon ci kuliyatu luxa al arabiya université al karabiyin faculté de langue arabe bu Marrakech euh, ma amoon mbégte mu baax ci préparer benn étude académique bu am rapport ak bindi Cheikhuna Ahmad Bamba tout simplement parce que malgré sama appartenance confrérique doon taalibeb Seydina Limaamu mais suñu borom comme nima ma ko ci introduction bi ubbi na sama xol bëggaloo ma Cheikh Mat Bamba depuis sama ndaw ma daan lubare lu bare bari ci ay bindam jariñu tamit lu bare bari bare ci ay khassidam lo xamni ni na ni participer na bu baax ci sama éducation euh, may ñaan suñu borom mu fayal ko julline ñep mais mu fayal ma kaman tam donc ci introduction ci euh, tecc limay fatali rek moy nasiha boo xam ne Seydina Limaamu joxoon nag joxe woon na ko mu ñëw ci xitaab boo xam ni mu ngi ko yónnee woon dëkk bu ñuy wax ngaa xam ay taalibeem nekkoon fa ak ay taalibe Cheikh Mat Bamba bis euh, coow amoon ci seen diggante mu bind benn xitaab yónnee leen ko pour ñu dajale ñëpp liir ko ci seen kanam mu ngi ko tàmbalee sami'tu anna ba'dakum kaanu yataxaasamuuna ma ixwaanikum alladina hum min talaamisi Cheikh Ahmad Bamba وهم وأنتم مسلمون فواجب عليكم أن تكونوا إخوانا فالمؤمنون كلهم إخوة وليس في الإسلام عداوة وبغضاء ne dégg naa ni lenn ci yéen dañu doon xuloo ak lenn taalibe Cheikh Ahmad Bamba te ñoom ak yéen ñëpp a yam ay jullit ngeen te li war ci seen diggante mooy ngeen nekk ay ay doomi nday dëgg parce que l'islam noonu amu ci meroo aussi amul place amul place ci l'islam wax leen kullun fal yaxus bi sayyidihi wa malaadihi wa yaamal bi ma amara bihi wa yaqtadi bihi fii xuluqi waaye aussi tamit di fàttali waxu Cheikh Ahmad Bamba bi nga xam ni waxoon na ni inna ak innama ku leen xam te jëfe leen doo mus a considéré jullit ci yow jullit ni yow doo ko mus noonu ñu nekk inna mooy lan mu ne inna seytaane lakum adu mooy seytaane kese mooy seenam noonu te ku dul moom waroo leen ko xajal noonoo ko waroo leen ko xajal ci seen xol innama mooy lan mooy innamal muminuuna ixwa mooy jullit yëpp ay bokk lañu jullit ñëpp ay bokk la nag it's easier said than que ci nëx du xalaa il xaaj euh, bi muy définir lan mooy dëgg-dëggi bokk da ngay sentir ne ñun kon niveau ba ñu rasulullahi bëggoon a yéeg ba léegi àgg gu ñu fa parce que dafa wax ni wal axu xaqan wal xaliilu sidqan andaru min kulli xaliilin xaqan nee na mbokk dëgg moo gën a jafe ci lépp lu raar ci àddina mu ne fa huwa alladi ka qawli man jalal xalak inna axaaka alxaqa man yasaa maak wa man yadurru nafsahu li yanfaak wa man ida raybu zamaani saddaak shattata fiika shamlahu li yajmaak qultu wa man yuxfil xanaa li yarfaak nee na sa mbokk dëgg mooy ki nga xam ne day ànd ak yow ci say bëgg-bëgg wa man yadurru nafsahu li yanfa ak di lor boppam ngir nga jariñu mu ne waman isa rey bu zaman saddan ak mooy koo xam ne bu demee ba problème yi jamono tas la chattata fii ka chamlahu li yajma ak lépp lu mu am moom